xaw su diina ji tey lambu naa ci gox yu nu wër baañas ñépp naan mayaa jaraway boye boo sigi tene naam yaa di mbër te kenn du la roy sos nga gaa ñi daan fecc fii ñépp nga ca tol ya di bay xen ma ñas sa yen du ma diis baañas yaa di gaar saxaar du la moy yaay limaamu shariifu ibnu abdulaay lañu way mandina ci leer gi ma duy ismulaay la def mu daway faale wut alal waxumalaak baay chef de gare yi at dina jay mom merut mom setut ku mer bo mere mu romb la wëy faale wut alal waxumalaak chef de gare yi at dina jay ma di seb gewel di la way baay jomb naa haway kula moy ma di seb gewel di la way jomb naa away ku la moy niru mag nga kenn du la bañ gerte yaa ngi doon bëgg a waw kursu baa ngi kenn du firaw baa ñas yow nga ñaari li yow la ñu fay ahlu cheikhu jébbalu leen roci xool lu jaam bi ñu doy jaamu te xàttana muñ xam ne àdduna du fi wéy boo xeloo ci àddina ji baa ñas bul di rëy yow du la jay yaa di nooru yaay ki ñu may buur mag bi mooy kilafal faydu baa ngi ñes ku la xam-xam ne yaa di faydu bi tey sol nga soose sol tukkulóor baa ñes sol nga naari faasi firaw géew bi rey na làmbu jiyaa tey ku am sa bu ko jey topp naan ko kenn mënu yaa ma mbër mi fii ñëw tey am nga daala am fa si mbër baa ñes mbër yu ndaw yi duñ bëre tey mbëri diine kenn ñemewul dékku baay kon nga kaawo mbër yu ndaw yi fa kër baay buñ bëree amuñ komba mbër mu mag mi yaay daala baay Cheikh Tidiane yor ngembam sëñ Aliou for na gaañi fay du baay moo de buntu baay mbay góob na mbay ma kuy natig moo lay xeetal sëñ Ousmane Ndiaye texe nañ ay dox ba gaaw na cey ajaban sëñ Omar dégg Qur'an loolu mbóot la kenn du ko wax Cheikh Fay Omar Touré ci wayoo yu ñoom mbóot lañ kaashifa uñ ñi mbóot ya baay kuy werente jàngu ko yow maqaama moom bu subuloo feeñal góor ga nekk jaamu baay doy kuy bëggit buuxanteel waay te Madina ak xeeb ko baañ xeebu suufi yéen yeewu leen géej Madina ak xeeb ko xeebu suufi suuf yeewu leen nekk jaamu baay doy na kuy bëggit buuxanteel waay oh. Madina ak koosi baañ kuy bëggit buuxanteel waay tafsiram arab olofon bum ci doon wedem loola toog li jaasa sànku ko yow bëgg mboolo ak daraja tee nga jëf yow ngir bëgg a bàyyi seytaane yi raw nañ xawsa yaag dagum mbaaya baay buñ bëggee mu wér doy na ah. seyru loo manit dox ca ràññe mulku ak malakut maqaami loo ci xam yow nëbbu ko dalay tardeel mbon mi loo ci xam nëbbu ko baañas loo ci weer dalay tardeel julli loo xam ba ko fay du bay bi doo mambar doomi xaw su fa xëybu bul werente topp ko yow fay du bi jàng rek mba baay ñas jéem a topp gaaña seydi aarifiina nga ñas yaa fi doon muhammadu tey seydi nuuxin bi mu hootee ñu bañ ne moom du feey seydi eesa bi mu hootee ñu bañ ne moom du feey seydi baay ñas bi mu xootee ñu bañ ne moom du feey te billaay wallaay dana xëy te billaay wallaay dana xëy mu tabax jàkka doyu leen mu tabax juma dana xëy mu xam le yàlla doyu leen mu doxe seyru dana xëy ca doomi jigéen yi nga jur baay ñas kenn du ci rusit soog a sëy bàyyi ñes jërëjëf yàlla yàlla yokku samay dolli lay ngeneen ba bay li nga def ci diina ji tey baa ñas doy na ndam te yaa